xam naa présenté leen sax day métti mu yen bu dis ak waa Sine Tour jeune amateur wala boog góorandooy ak si ak structure am ñoo ko tëgg pour le quatre mars incha allahu rabbi maanaam combat Sa Thiès ak Reug Reug balaa ñu ko bëri fa la ñuy waxtaane combat bii waa Sine Tour yen ak ka nga xam ne nii moom mooy booy Sadio ak Batista xaaral ma njëkk ma njëkk nag ci waa Géejawaay ndax kii Dakar Plateau la jóg kii moo ko fi dalal Lamine daa bëri wax di wax rek billaahi wallaahi du lamb kii moo la gën a xam ne moom du lamb fekk naa ko tribune amateur fi ñu nekk tëbal ko fa dama ko duma ba mu daw moom mi barke alxuraani karim mu daw nga wàcc ko barke Serafal dama ko duma ba mu daw amateur yaa ngi fi duñu ma bàyyi ma fet kon ko keroog la lañ ko def policier yee ko gañ ak gañ ak ko policier yoo ko yóbbu laa la wax bu ko policier dama koy rey kii moo la gën a xam moo ma la gën a xam bu baax a baax barke alxuraani karim góorondoo yi nii ñetti adversaire yi nii yu ñu changé bari amoo problème adversaire damay jël adversaire sax dem ba ci digg bi ngeen ma nee dootul bëre yow tapet bee mel ni soom bi laa jëloon mu dem ba ci biir daw ñu jox ma kii dama amul choix sama dernier choix mooy kii damaa xam su ma toogee xanaa yéen xeex baa wala bëri baa bëri su ma toogee journée bee may rëkk te du ma bëre te xama rek wax ju bëri kenn xam xamee ma ko te la kaat ñëw na ma pare moo tax ñu jox ma kii ba ko këlamtikoo rek jàll dem da nga koy ah. a bañ lool waaw

di sant waa Ndiassane man xaadar pire la taalibe Cheikh Mouhamed Kounta laa maa leen sant ñoom ñëpp waa Ndiassane di leen di leen bëggee di sant koñ bu ma jógee bu ma juddoo bu ma yoroo bu ma bàyyeekoo muy ñàccu ker rawatina Dakar plateau bi yëpp ñoom laay représenté hmm. di sant sama waa écurie maa leen di bu baax a baax di leen gërëm man école di Barjon laa nekk maa ngi sant sama waa dëkk waa Thiawane Kounta waa Thiawane Bambara maa leen di sant ñoom kees bi yëpp ma fenn sant ñoom ñëpp. d'accord naa ñun dañoo bëgg cant gi non waaw waaw damay nuyoo dogaguma. waaw ma maa ngi sant ñëpp koo xam ne dañuy jàppale waas. waaw naan kii dinaa ñëw ci waxam kii lu mu wax yëpp dinaa ci ñëw Babacar di sant nag staff yi ma àndal voilà bi kii laa jël mooy sama sixième combat cinq victoire laa def cinq vi cinq combat cinq victoire. Ah. kii kii mooy sama sixième adversaire. kon kii man jago jago ma sa ragal mais bàyyi ma sant ñii ma àndal staff yi. ak ñi ma bàyyi koñ ba ñëpp bëgg moom mënu leen sant fii waaw mais maay sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant site yi nga xam ne dañuy teel a xëy guddee wàcc amuñu seen fay ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñoo leen sant di leen gërëm waaw kii nag Babacar waaw barki sinama billaay walaay talaay mënuma am combat Babacar am nga combat kay waaw déglu mënuma am combat man damaa bokk si làmb damay neexal làmb di làmb kon faaw promoteur yi duñu bàyyi xel ñun ndaw yi ñun ñuy mag doon bëri yi mag waaw déglu may expliqué la kii nii kii mu ngi doog am combat boo xamante ni barki Sénégal billaay wallaay am am amul client boo xam ne dina ko dina ko kii yaramam bii. kii yaramu xaal la yar. yaramu yaramu xaal la yor. fépp daa maas lekk daggul ci yaramam. barki maam Serap Fall. dugal la ñaari pomme ko fekkee sànni ñu doon neuf personnes ñoom. ma dugg seen biir duma ko dumay metti ba policier yi wàccee. waaw léegi nag loolu waaw léegi nag loolu waaw léegi a Ndoye dox jox na la xaalis du waaw jox na ko xaalis léegi le 4 mars ci maanaam mu leer arbitre soufflé yéen ñaar donc police du fa nekk kenn du fa ne ngeen xeex man dem dëj moom a dem ngénte kii moo la gën a xam loolu kii barki si nawet billaay walaay mu ngi doog am combat dina xeex dina bëre combat bi di comme am la moom a gën a neex ci combat bi dama ko jël adduna ñëpp nee ma dañ laa Babacar képp ku ne yaa mun Wassine te le 4 mars 21 wax lu la neex. man balaa ngaa ne yaa ma day fekk 22h jot wala wala am na combat Babacar. combat bi loolu laa ci gën a bëgg ñëpp dañ mën ñeneen ñi di day dellu avance bi dëggu kii dafa wiiri wiiri xam naa wiiri wiiri jaari ndaar yi boo jëlee bii waaw barki maam serafal bi la yóbbu top 5 xale laa dama am doole mënoo entraîné wul xoolal tànk bi mun defal nii 10 woo barki séraman maa la mun maa la doole ma la dund a wax ba da a a a mun fuuf maa lu mën fuuf waas taxawal waaw waas doo réglé Babacar man xale laa non dama bëgg nga réglé non kii lu muy jéem a wax nii moo amul Babacar mais bari combat bi Babacar mooy dàq sa grand combat ma dara kii Babacar bi moo ko soxla kii moo yey di mut muti xamul loo muy mut muti nii parce que dañoo tasee dafa maa ñam moo tax muy rëy làmmiñ yi di wax di wax ju bari avant tout nag maa ngi sant sama papa sama lépp production waaw waaw man doo ma jël muy yomb non sàmbale bi mooy wax dama ngaa déglu may wax muy jéem a luubee non waxuma ba doyal Babacar kii mënul am lu yomb kii day bëre day xeex Babacar bu neexee yàlla barke Seydina Mohamed man taalibe Cheikh Mohamed Kounta laa xaadar pire du ma ragal Babacar kii day xeex day bëree combat bi loo ci bañul bañu ma ko ci nee na yaa nee nga yaa ma ba jàppale nee nga yaa ma mën nee nga yaa ma ba doole mbooy barki maam Serfa ngemb du xaalis man damaa jàng bëree. maa ngi sant sama papa bu baax borom TDR. kañ production maa ngi kay sant. nu ma mel ginnaaw yàlla moom la. nawuma kenn ñeewuma kenn faalewuma sama benn morom ndax moom. sama papa ji maa ngi koy sant di ko ñaanal yàlla may ko wér may ko gudd fan. ba li mu bëgg ci àdduna moo xam yàlla na ko yàlla defaral. maa woo sama xarit yi may àndal yëpp. ku ci mel ni Fisa Balla Gànn Gora Pata di woo sama waa koñ. di woo waa Tëngéej di woo waa Touba di woo waa di woo waa Jamñaajo di Casamance maa leen di woo ñoom ñëpp ñu jàpp ci làmb ji di woo xale yi cité un ba cat waa kër Pa Ala Ndiaye Baye Ale Baye Ale dafa ma woo ñëw mu ne ma combat bi sama combat la Ale maa ngi koy sant bu baax di sant ay doomam Mansour wal Baya maa ngi koy sant bu baax Ibrahima su ma limee Dioum Masata Amdala groupe Layro maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp mbës mi ma àndal maa ngay sant mbës kii amuñu fayam barki Serigne Saliou Mbacke kii bu dul woon ak moom mu ñaaw barki alxuraan karim ndax nit la koo xam ne non nit la koo xam ne dañuy gëm gëmloo suñu bopp à tout moment bu méttee ba méttee dañuy woo bu ñëw xamal nañu ay mbër ngeen xam ne lépp di sant suñu waa kër di ñaanal sama papa sama yaay fi ñu tëdd yàlla na suuf oyof seen kaw di tàggatool waasintóor kii yoonam nekkul ci làmb non non non tàggatool nag waasintóor yow itam nag fenn tagul nga naan da nga tàggatoo Babacar waas non Babacar Babacar maa waa koñ di sant di di sant fu ma bàyyi ko di sant waa Dakar Plateau wala wooteel adduna Babacar man ñii laay sant maa ngi waa Petersen waa marché Petersen fa ne képp ku naan eh. ma fi ay yoo ne jaay la di sant sama waa koñ waa Dakar Plateau